chers internautes Dak Médina salaamaaleykum yéen ñi nga xam yéen ñuy suivre un peu partout dans le monde entier ñu ngi tey seen émission lamb ci biir Dak Médina comme saa su ne daw chaque samedi à de 21 h si Dak ngeen ci àndal seen doomu nday Lawdar ak chaque chaque fois nag ak champion bu bees bu ñuy ànd bu ñuy seeti tey ki ñu seeti nii yaakaar naa dootuñu ko présenté ci Sénégal dootuñu ko présenté dans le monde entier surtout ci côté lamb waaw muy ndaanaan ci lamb di Ibou Afia di champion bu mag boo xam ne moo doon bëre gis semaine bi passé ak caatu yàlla may ko ci ndam ñu koy féliciter champion bi euh, di encourager Thiatou Piol di ko ne keroog ñëw nga ni nga war a ñëwee ànd nga say mbokk ànd nga sa écurie euh, yàlla mooy may ndam yàlla xañ na la waaye bu mu la tax nga décourager xale bu ndaw nga bi moo nekkoon sa troisième sortie kii nga doon bëreel def na sept sorties dégg na cinq victoire ak ñaar yoo xam ne muñal te terewu kaa bàyyi mi ngi jàpp boobu ba léegi yow na ngay xale bu ndaw quoi ñu lay encourager naan la jàppaatal dolli say entraînement xam ne làmb da la soxla Euh, champion jaar nañ la Ibou ñu ngi lay jaar bu baax a baax mbër. waaw bisimilah law ñu ngi lay dellu siyaar ñu lay bëggee bu baax ginnaaw bi ñu sant yàlla julli seen am Muhammad sant suñu ñaari waar di nuyu ñu fi teew ñëpp di sant sëñ Afiya mbaake bu wér di sant Mamor mbaake di siyaar kilifa diine kilifa aada yëpp di bëggee ñëpp di la bëggee bu baax nice. ñu ñëw sa diwaan mii Medina fii di jàppoo yàgg nañ fi ñëw di la fekk chaque jour bu ñu ñëwee même même tête yi fi fekkoon lañ fiy fekkaat. Euh, depuis sa premier combat bi ngay mbëree mbapat ba legui ñi nga doon andal ngay andal ba legui lan moy secret bi yow ak ñom waaw lolu mom moy li nga xamantene ne ni li ñuy wax lu yag deug la rek waaw ndax bo ba legui ñom lay andal suma amé bis ñom lay gis kon tay ba legui ni waaw ci lañ nekk ci ñom lay andal sa suné waaw sa bu fu ñe ñom nga fi fekk non la démé hmm. ci combat bi ñu joggé ni mu nekkon sa 7e sortie yalla may ci ndam nga ci doon bëral mbeur muy nan caatu piol. Ibu la moo la boole caatu Piyol ak risque yooyu la moo tax yow chaque fois rek da ngay a jël mbër moo xam ne musul laal suuf nga jël ko pour jéem ko daan la moo waral lool loolu sa secret la wala ñi lay ngemm ñoo la koy dee wala sa staff la wala say copains ñoo la koy digal. waaw lamb moo demee noonu lamb boo bëggee doon daanaan foog nga daan daanaan waaw da caatu Piyol bi daanaan la waaw moo tax ma jël ko waaw pour ñu bëri nag waaw ëpp moo ko doole dàqu moo ko bëri nag yàlla moo may ndam waaye maa ngi koy sant xam nga lamba ngi ci kanamam waaw na defaruwaat xam na waaw ay avancé ngi ci kanamam parce que lamb la mbër la comme mbër yi rek waaw noonu la demee. da ngay non loolu loolu dëgg la mais Ibou la moo tax nga bëgg di fekk mbër yi nga xam mosuñu laal suuf nga ne yow yaa ñu laalal suuf loolu fan nga ko teg la wax sànq rek boo bëggee doon daanaan foog ngay daan ay daanaan waaw la demee. mais am na ñoo xam ne dañuy bëri di daanu di bëri di daan mais la moo tax nga ciy taamu ñu musul daanu. waaw mooy la ma la wax rek làmb la rek waaw yàlla mooy maye ndam waaw soo bëggee doon champion da ngay daan ay champion waaw noonu la demee rek waaw nice. avant ñuy jógee foofu da nga bëre woon daanu bëre am victoire ñëwaat bërewaat am ndam nan nga ko jàngatee diggante defet bi ak deux victoire yi nga tegle nii. waaw mooy li ma la wax rek parce que làmb moo demee noonu da ngay làmb daj des fois nga làmb doo daj waaw dama jógee ci defet Aliou Fat Fat daan ma waaw ma ànd samay mbokk waaw nekkaat samay entraînement ñu amaat combat ma xaysara ñu nekk ci li ñu war a nekk la yàlla ma ndam noonu la demee ma ñëwaat am caadu puwel bi bëreeg moom yàlla may ma ci ndam nice noonu la demee. bu ñu jógee ci loolu da nga nekkoon Ikiri Ndakaaru Ikiri Ndakaaru jógee euh, dem coalisé boo boo ko ànd ak Ikiri Fass muy muy Ndakaaru la moo tax fekki woo waa Ikiri Ndakaaru foofu. waaw loolu nag man loolu du ma ci xaw a sori quoi parce que man bi may dem Ikiri Ndakaaru sax daam ci loxo yu ma teg eh, te ki ma teg ci loxoom waaw man fu mu dem rek foofu laa jëm. waaw moo tax man loolu dama ci sori quoi waaw ñoo ngi mbooloo waaw ñoo ngi ci suñu jàmm ñoo suñu entraînement waaw foofu noonu équipe bi foofu noonu yéen a ngi fay sant seen bopp wala euh, équipe bu bees la wala ña lañ yoroon équipe Ndakaaru ba léegi ñoo fa nekk wala la nga doon sentir équipe Ndakaaru ba léegi loolu nga sentir wala. waaw moom laay sentir fi ba léegi ndax ki nga xam ne mooy suñu manager man moom ñun dañu ay combat te mu ngi ci équipe Colobane Mboro waaw ñun ñoo ngi sant yàlla bu baax foofu ñoo ngi ci gis suñu bopp bu baax. waaw noonu la demee. keroog ñu gis euh, ndaanaan bu mag ñu naan ko grand picca ñu gis ko keroog mu nekk ci say préparation combat nit ñu nee nañ sax daan la fek ba sa kër di waxtaan ak yow di la ñaax euh, Pithia gis naa ko waxtaan moom nee na ma li li mu defoon ci ni la bëgg def ci yow. waaw Pithia sama père la sama père am na si man yéene waaw combat bi lu métti lañ doon teg waaw billaay walaay di ko ñaanal jaamu xam rek waaw parce que moom am na yéene ci ñun quoi waaw day bàyyi lépp. waaw ñoo entraînement nekk ci ñun xam nga lépp ngir bu ñu ko bëgg dem ci kanam rek waaw noonu la demee. combat bi ñu gis ni nga yokk ci masse yokkaat doole euh, la moo waraloon loolu yow li nga doon ne pour booy bi la wala da ngay wala da da nga bëgg boo jógee ci lii dalaat ci leneen ak leneen. waaw làmb la dañuy entraînement rek ñu ngi fi pour ñëpp. waaw ñu ngi fi pour ñëpp dañuy liggéey rek. waaw. Euh, lépp même ci biir combat bi tamit nga nga nga jox cër adversaire bi la moo waral loolu dafa am ñu ne sa ginnaaw Ibou wala yow da nga sentir ni yow da nga fa am foo teg sa bët ci làmb waaw noonu la demee làmb ji dañ ko soxla woon man dama ko soxla woon mais sama gars yi ñu ma ko woon bëgg fop moo tax lu mu laaj rek dama ko ci doon def noonu la demee naaj moo waral loolu lépp. ñu gis ni sa wax bëriwul Ibou quoi. Euh, gars yi ñu ne da nga xaw da nga xaw ragal defet moo tax ba boo face à face sax doon nangu parce que da ngay bañ wax dara ñëw mu essuyer. loolu ragal defet la wala timit la. non du question ay ragal defet sax voilà. ii mais gars ko wax du man Ibou xam ne yoo xam ne gars yi koy wax rek gars yi ñooy i question sànni ko ci biir émission yi ne Ibou du wax parce que dafa ragal defet patati patata affaire yooyu quoi lan moo waral loolu lu tax doo wax Ibou. non du ay ragal defet sax làmb moo demee demee noonu rek xam nga nit ki tey a aadama dina la bëgg ci say nit dina la jëpp tamit ci ni ngay moo tax ñun lépp lu ñuy wax rek waaw dañ koy xoolaat bu baax quoi amul na ñuy wax dañuy bëgg xam nga buñ ci paree rek ñu ne waaw tegu na ci yoon quoi noonu la rek mais du ay ragal defe wala dara nice noonu la demee. dëkk Medina tamit di fréquenté biir Medina euh, yaakaar naa fi ñu toll nii nekkatul Ibou Medina quoi Ibou Ndakaaru la parce que Ibou ñëppoo koy safoo keroog bu ñu gisee sa sa sa say entraînement gis na nit ñi di ñëw mais keroog bi ngay génn dafa mel ni mbëru mag mooy génn waaw suivre nañ ko Dak Medina direct bi gars yi fu ne la fa di jógee fu ne Ibou est ce que xam nga ni kon làmb fu ñu toll nii dala soxla bu baax a baax est-ce que xam nga ni tamit que ni Ibou Afia yamatul fii rek Ibou Afia léegi international la est yaa ngi bàyyi xel loolu bu baax a baax te lamb tamit euh, moo fii boo ci xasee toll nii da war a gën a góorgóorlu xam ne li ne sa ginnaaw du lu ndaw est-ce que loolu yaa ngi koy sóor tamit après nga war a jël tamit est-ce que loolu yaa ngi ciy bàyyi xel waaw ñu ngi ciy bàyyi xel bu baax ñun adversaire moom eh, parce que ñun xamee nañu loolu quoi parce que loolu amuñu luñ ciy ragal waaw comme li nga wax sàng Ibou Ibou ñëpp la Eh, ñëpp dañ ci bëgg a gis seen bopp te damay bëgg ñëpp gis seen bopp waaw ndax man fépp laay dugg ñëpp a may bëggee waaw noonu la demee nice. mbooloo mi nga xam ne tamit ci waaw comme li ñuy xaar ci nit ñi rek. waaw parce que tamit nit ki ñuy xam nga doomu ma soo jógee rek génn gis mbooloo topp la rek loolu rek sas la eh, noonu la demee moo tax tamit waaw man ñoom maay seen ginnaaw comme ñu nekkee sama ginnaaw lu lu mu laaj ci làmb dama koy def. te ma loolu noonu bari sëñ Bamba. Medina dafa nekkoon ci loxo Gris Bordeaux Gris Bordeaux fi ñu toll nii mën naa ne mu ngi ci fin carrière parce que li ci dese ci làmb bëreetul mais Ibou yow boo jógee dafa mel ni Medina dafa nekkaat sa loxo bu baax a baax a baax a baax est que xam nga ni Medina dañoo bëgg victoire dañoo bëgg mbër bu sérieux dañoo bëgg mbër bu mun a wax sérieux nga bëgg nga victoire mais wax ji moo des Ibou la moo tax doo wax ko supporter yi waaw supporters yi comme. waaw mais Ibou waxal supporters yi ne leen kat bés bi dinaa def lii dinaa ci def safara dinaa ci diw kaani ak kii mais Ibou yow chaque jour rek gaa baax na ka li yàlla def nii non maintenant booy maintenant nante dañ bëgg ngay wax Ibou la moo tax doo wax Ibou. non loolu question nante man li may li may li wax. mooy li may wax xam nga mooy lan mooy su ma amee combat damay ñëw wax li ma xam ne ne mam waaw man wax ju bëri man mënu ma ko quoi man noonu laa mel ay def kaane ay yii yooyu yëpp garaawul mais parce xam naa waaw man noonu laay dundee quoi naaj. waaw naaj man noonu laa mel. waaw dafa leer. naaj noonu laay dundee. boo ci caatu piol nga ñëw ne sa kanam tey. waaw man nag maa ngi sama déglu sama gaay rek kuñ ma ne kii la rek ma ñëw parce que làmb maa ngi fi pour làmb eh, ku ma làmb boole rek ma jël. ñu ngi déglu booy raku raku raku fëgale bi ñu naan ko Modou fëgale mu ngi dugg ci réseaux sociaux yi wax bu ñaaw bu ne mu ngi koy wax. nee na ñimewoo ko te nanguwoo jël avance am te boo jëlee avance am di nga xam lépp dëgg parce que xam nga ko am nga foo lañ jot a jaar kooku xamaluma ko dara xamaluma dara day su ay wax noonu rek daa bëgg coow rek mais maag moom mooy loolu seexuñu dara maas mun la joxoon avance am ko jël man samay bët dépassé na kooku du ma ko wax bëre ak moom gaa daxaw la loolu bàyyi leen ko fi raw ko gaa leen kon tey kon tey Riis Ndiago bu ñu la ko joxoon wala Tapha Mbeur. man maa fi pour ñëpp du ma tudd benn turu kenn maa fi pour làmb ci làmb laa nekk maa fi pour ñëpp. mbër yëpp loolu la wax ibu mais ibu est-ce que pare pour sa waay man maa pur fi pour ñëpp laa la wax waaw du ma tëgg benn mbër maa fi pour mbër yëpp ku ma làmb boole rek ma bëre waas kon kon tey maanaam daal bébé bis mi tey pare nga pour moom gis na keroog combat bébé bis ni mu demee ñëpp gis nañ ni mu demee quoi. pare nga bul jël ko wala pare woo. déggoo ma ma man maa ngi fi pour ñëpp ku ma làmb boole rek ma bëree du ma tudd turu kenn duma ma lim kenn làmb laa fi nekkal waaw maa sama samay entraînement kuñ ma boole rek ma jël du ma lim benn mbër du ma tudd kenn waaw nice. xam nga yombul tamit mbër bëree ci arène euh, bëri ci saison deux fois parce que mbër yi bëri nañ trop supporter mbër yi nga xam nañ bëri supporter bëri nañ trop mais Ibou yow gars yi préféré la nga bëri ren deux fois ci ci année bi lan moo waral loolu supporter la. wala sa yar la wala yow dafa am fo tek sa beut wala da ngay yow da ngay business ak promoteur yi. man amul may business ak promoteur sama manager mooy dox lolu waaw day jek jek woo na ma combat diw ni ta ma dem signature waaw kon non la demé rek nice waaw. kon baax na Ibou comme non nga demé man tay j'aurais préféré yow nga wax tay ñetti mbeur yi man nga nga wax ma ci kenn man sa combat bes bébé bis mi gars ñu ngi koy wax sa combat Tafa mbeur gaay ñu ngi koy wax. Liss Ndiago tamit moom it mi ngi fi nee na moom booy but yaakaar ne ci moom nga war a mën a ci moom mooy mooy yoon bi du yoon bi ku ñëw mu freiné la. mooy li la wax sànq rek ñun du ñu dëkk micro ñuy wax loo xam ne nekkul ci ñun xam nga tey mën naa fi toog li ma la ay naaxu mbër pour bëre ak ñoom mais du ma ko def maa ngi fi pour làmb ku ma làmb booleel ma bëre ak yow naa yees noonu la demee du ma lim turu kenn. ñu am jàngat tamit que ni bi nga daane sa suba sa dañ ñëw pour bëgg la jël gars yi ñu ne yaay delluwaat nga école loolu lan la quoi. waaw parce que mbër bu daanee day toog deux jours trois jours noppal yaramam mais yow da ngay rek sax sax combat na boo daanee da xëy nekkaat ci. waaw parce que la demee parce que li topp te ñu war a bëri dimanche prochain kon boo demee yàlla may la nga toog ñëwoo rek daa am ne nu muy demee quoi moo taxoon ma gën a dem entraînement pour jàppale leen noonu la demee. mën nañ xam sa combat bii nii passé nii ñaata séance nga doon def. waaw deux séances rek dama doon dem xëy dem salle su ma jógee saal ñëw nelaw ngoon ma dem contact école ba nice. kon bi sentir nga ni sentir doole quoi ci yow sa sa si bopp nga. waaw sentir naa ko bu baax waaw ba ñi nga xam ma sax xam nañ ne am naa doole ci combat bi waaw noonu bi nga njaabee ñëpp wax nañ ne Ibou mii kat liggéey na bu baax a baax est-ce que tamit euh, dynamique boobu nga téye at forme boobu est-ce ko xaraat sa yeneen combat wala am nañ yaakaar que ni di ñëw da ngay gën a yokkaat doole. bu ko laajee bu xam nga comme saa nii boo jegee ci victoire sa combat day gën a métti parce dañ lay gën a jox ay lóor waaw ñun dañuy gën a liggéeyaat waaw xam ne defaguñu dara ci làmb waaw noonu la demee combat bu amaatee dañuy gën a yokk maas gën a liggéeyaat waaw bu pare lépp naaj noonu la demee. xam nga ak lu làmb dala soxla bu baax a baax euh, tey mënuñu wax te duñu wax ci keroog li xew esat euh, supporters yi nga xam ni ñëw di daje ay 16. est-ce que yow nga ko jàngatee loolu rafetul quoi te bëgg nañ tamit mbër yu mel ni yéen comme yow tey say supporters yàlla def na boobu ba léegi musuñu yàq stade suñu dégg Ibou Afia ay supporteram ñoo def li wala ñoo def lale léegi ñu bëgg nag nga jàllale fii à travers Dak Médina euh, nga wax supporters yi nga xam ne ak mbër yi nga xam ne seen supporters yi ñooy yàq stade bi nga xam ni dañ ko def pour axlu làmb pour yéen ma bëgg nga wax ci loolu lancer ci message wax ci wax yoo xam ne wax ju naaj sa boo xam nit ñi dinañ ci sant seen bopp Ibou waaw lol dañ ci wax dañ ci sawar di ci wax quoi parce que mbeur bi suñ ko yàqalee bo amé sa combat nga dem ñu daan la supporter yi yàq estad bi yàq siège eh, duñ ñu wax ci supporter yi de mbeur bi la wax wa lepp lu ñuy def ci kaw mbeur bi lañ koy tek ndax mbeur bi la wax mo fa ëndé wa man duma ma képp ku am képp ku and ak sa mbeur nga dem estad parce que yalla moy may ndam eh, buñ la buñ la bo ñàkkee nga génn xam nga xam na waaw parce que nga dem di wuti di am bo démé tay nga ñaaka wàccal ndànk nga dem xam nga bañ a yàqal mbër bi bañ a def dara parce loolu mooy yoon quoi nice te ñu bàyyi xel na tamit waaw waaw non violence bi mbëri la ñuy yàqal waaw noonu la demee. Ibou Afia ci fitna ñëpp naan Ibou Afia buy bëree patati patata mais boobu ba léegi gisaguñu benn supporter Ibou Afia yàq dara ci stade boobu ba léegi gisaguñu déggaguñu ñu ne supporter Ibou Afia moo yàqale wala boobu ba léegi déggatuma Ibou Afia wax wax bu ñaaw loolu ci yar la wala dafa ay mag yoo xam ñoo ñoo lay waxtaan ñooy waxtaan ci loolu ci yow wala. waaw mooy comme li ma la wax sànq rek affaire bi du ay toog di wax wala di kii ñun lépp lu ñuy wax dañuy xool li ñuy wax bu baax parce que amul ku dul juum mais tey bëgguñu di wax loo xamante ne tamit xam nga suba dañuy toog naan kii moo wax lee wala moo wax lële moo tax ñun lépp lu ñuy wax rek dañ ciy teer bu baax amul ku dul juum nag quoi waaw mais mooy loolu noonu la demee naas. président Paco. ay ASC mi ASC jàpp euh, ba pare nekk doomu Medina. Euh, doomu nekk doomu nation bi euh, couleuru Sénégal fu ne nga dool ko fa ba fu ñu toll nii nag drapeau Médina ne sa loxo ñu am benn champion muy Ibou Afia. soo gisee ñu bëgg ko yaram moo tax ba pare nekk góor yàlla. kooku noonu mooy président Pogo Joson Thiam moom it ñëw wax ak xol parce que ne booy bi tarkindaa la ñoom du ñu faral ku dul ragal euh, président daw ñëw respect bi ñu doon wax ak yar bi ba léegi moom la président bi ñëw indiwaat nee na moom dina la jàppale la war a jàppale Ibou xam nga ni mbër bu daan ñëpp ñëw. waaw lu leer nga wax moo tax yàlla na yàlla musal ci daanu yàlla na yàlla def ñuy daan rek ndax nit ñi di gën a ñëw waaw ndax ñun combat bi dañ ci dégg lu ne waaw mais yàlla nag moom moom ndam quoi mooy maye ndam waaw noonu la demee nice. ñëw ci combat bi parce que préparation combat bi combat bi mi ko jëlee euh, sa copain Aziz gars wax nañ ko lu ne naan la moo tax ngeen di sacrifier booy bi la moo tax ngeen di jox booy bi caatu puyol booy bi moo moo ko doole loolu surtout loolu surtout doole bi gars yi waxoon nañ ko yow nga am yaxim que ni booy bi boo ko jàppee du yomb te loolu nga ñëw appliqué te loolu nga bëree ma bëgg nga décortiquer ma combat bi wax nan nga bëree moom. non loolu moom xam nga mooy loolu quoi man caaru sama waay la bari Serigne maa ngi koy ñaanal jàmm xam rek sama waay sama gaan la waaw làmb moo ñu boole woon ne jeex na jeex na naas waaw yaa ma gën a xam mooy loolu. waaw Ibou léegi gis nañu Paco li mu wax ak li nga wax léegi léegi mooy sa yar ak sa teggin moo la may lépp loo am ci biir lamb quoi mais Ibou euh, sa combat bi say supporters dañ ci sonn bu baax a baax euh, dañu gis depuis avant bi combat bi taxee ba léegi ñu tax commencé tax ay drapeau commencé jaay ay carte fépp foo jaar ci biir Médina booy ñu ngi di la bëggee supporters yooyu noonu euh, ma bëgg tey nga am nga delloo leen njukkal parce que amuñu tey lu dul mbër mi bëri ba pare toog ci biir ci biir réseaux sociaux bi taxaw wax waxuguma la ñi la ñi la jàppale ci làmb ji de ma ñooñ de mais en tant que yow say xarit yow mooy supporter ah ay frère nga ma bëgg tey nga wax ak ñoom fii en direct wax ak ñoom sant leen gërëm leen wala leen ni tamit li des si kanam li nga leen réservé moo ëpp ko mooy li nga ma wax sànq Ibou yow laay mooy li ma la wax sànq rek xam nga maanaam nit ñi booy ànd ak moom soo amee bis ñu bàyyi seen yitte yëpp nekkal la kenn xeebu la ci kenn xeebu la sa bis kon ñooñu pour man yow amoo seen fay quoi waaw li nga leen mën a fay mooy xam nga di leen ñaanal rek ñu gën a jàpp waaw gën a yokk affaire yi que man moom li ma leen desal xam naa ne moom ah bari si sëñ Bamba tàngat waaw lu mu laaj dama ko ciy def naa noonu la demee man aw ma mënu ma leen fay ñoom ñëpp ba ci booyu ndaw yi ngay gis ni toog nii aw ma seen fay ku ci nekk xam nga da ngay ñaan ñi di sonn waaw lépp ngir ma am ndam rek waaw mooy li ma la wax sàng rek nga doon booy boo ngéem boo génn gis mbooloor loo rek sas la waaw noonu la demee naas. ci combat bi ma da mu li parce que li duuf si nit nag bi xajul si cing li parce que ak yow yaakaar naa mën nañu waxtaan deux heures temps mais émission dafa am ay normes dafa am ay temps boo xam ni ci la mën nekk mais tamit euh, dama bëgg euh, ñi nga xam ni ñooy promoteurs yi ñi nga xam ni ñoom ñooy amateuru lamb yi dafa am ay combat yoo xam ne dañ ko taxaw wax ko sànq yi wax naa la ko il faut si ñetti mbër yi nga wax ci wala pare nga nga ne ma pare naa pour bëre ñetti mbër yi ma lay wax wax naa la ko sànq nee na liste Liss nee na bëgg na la Modou Feugueleu la nee na da la bëgg Bébé Bismi nee na da la bëgg mais il faut nga ñetti mbër yi est ce que pare nga pour bëre ñoom ibu déggoo li ma la man du ma tudd turu benn mbër mais est ce que pare nga tamit pour bëre ñoom ibu wala yow dafa am looy sóor tamit xanaa déggoo li ma la man la man maa fi pour ñëpp man du ma tudd benn turu mbër ci làmb laa ne ci làmb ku ma làmb booleel ma bëre yow. kon ñooñu tey bi seen avance ñëwoon nga jël ko tey. léegi léegi bu ñëwoon ma xool nu ko def man amul bàyyi ma fi benn mbër ci làmb laa nekk. mooy daw nga ne. ma dégg léegi booy di wax fi ci ginnaaw naan xaw ma euh, nu mu tuddati Malaw Seras xaw ma kanati nu mu tuddati am na ñeneen nit ñi waxaat naa booy maay dégg xam nga ay rumeur rek da di wax naar soogaas yooyu yëpp tam maa ngi koy dégg jot nga avance ñoom ñaar dëgg la wala dëgg. dëggoo li ma la wax ma ne man maa ngi fi pour làmb. non damay laaj ndax da nga jot ñoon seen avance wala jotagoo seen avance. jotuma avance su kenn maa ngi fi pour làmb ku ma làmb booleel rek ma bëre ak yow waaw ñun du ñu li mu ma turu kenn ci làmb lañ nekk ci làmb lañ nekk waaw ku ñu làmb boole rek ñu bëre ak yow noonu la demee. tey boo ko doon tëj loo koy tëjee. waaw li ma koy tëjee xanaa di santaat yàlla bu baax waaw di sant yàlla bu baax di siyaar sama gaa yëpp. waaw amu seen fay ñëpp waa Medina bi yëpp Colobane Fass Gueule Tapée ba Plateau waa Yaraax di bëggee ñëpp waaw di sant tamit ni ma jàppale ci combat bi di sant ñëpp ku ci mel ni xam nga sama père Cheikh Ba jàpp na ci bu baax yàgg na ma jàppale lu tey maa ngi koy sant di ko ñaanal xam nga ku ci mel ni maam Doro Asalem maa ngi koy bëggee tamit bu baax Bamba Fall jot nañ fa dem mais dafa fekk mu génn. waaw te xam naa ne bëggoon na ci jàpp mais dafa fekk moom tamit. foofu ci Bamba Fall sax laa ñëw monsieur le ministre waaw euh, waa Médina amuñu ku yow te yow yaa ne Médina moo la ñor yow yaa ne Médina doomu Médina yow yaa ne Médina lu mu yëngal nga dugal sa loxo tax ji rib Ibou la day bëre te day bëgg ku koy jàppale ci ay combat am dëgg la ko foon da nga woon mais recevoir al booy bi yëkkati jox ko parce que fi ñu toll nii dafa soxla ndimbal mbër doo bàyyi ba mu am combat nga ko jàppale ah da nga koy teel a jàppale doo ko ci saal yu baax yi wutal ko ay produits yu baax mu koy def ci yaramam bu ko fee mu xam ne moom champion la Bamba Fall jàppaleel mbër mi bu yàggaleen waaw xam nga ah <laughs> kii Thierno Ndiaye président jàpp na ci bu baax moom tamit Colobane waaw ah, ak sama ñoom grand Abdou xam nga jàpp na ci bu baax ah, xam nga ku ci mel ne tamit président Ousmane Ndiaye jàpp na ci bu baax moom tamit ñu ngi koy sant di ko gërëb xam nga ku ci mel ni Paco Jason sama père mi fi toogoon sàngam tamit jàpp na ci bu baax yàgg na ma jàppale Grand Major 23 billaay moo ma jox otoom booy saxtan nañ pare-brise bi ci combat bi waaw jàppale même weccet bu bëri xam nga tamit maa ngi koy bëggee bu baax xam nga ak yaay Fatou Mara maa ngi koy sant yaraax bekaay fasut maa ngi koy sant bu baax moom tamit xam nga ak sama yaay mère Aïda Sène mère Aïda Sène 29 Colobane moom tamit xam daf may jàppale bu baax maa ngi koy sant bu baax di ko ñaanal ñoom ñëpp ku ci nekk laa xam li nga bëgg yàlla na la ko yàlla defal waaw di santaat bu baax di sant ñëpp waa Saame tamit maa leen di bëggee waaw di leen wax ne làmb di seen làmb la woon waaw ak waa Campenal ma ku sama grand idi xam ñoom ñëpp maa leen di bëggee ko lim rek juum maa leen di sant bu baax di leen ñaanal. dëggal loolu ñu ne gars yi ne ci biir jeel yëpp euh, ñuy jégalu sax ci biir wax bi ñi nga xam ne ay lañ ñu jàpp leen ñu nekk ci biir prison dañ lay bëggee quoi Ibou loolu quoi muy mu ci mel ni 100 mètres bi nga tudd noonu euh, jommul kenn quoi ñeneen ñaan ñoom ñi nga xam ne ñi ngi yal na leen yàlla jàppale ba loolu li leen tëjee wala loolu ñu fa nekkee ñu bàyyi leen ñu génn te bu ñu génnee ñu nekkat ci norme bi nga xam ne duñ fa dellu ñooñu xam mooy waa 100 mètres ñooñu loolu la ñuy wax tamit at waa détenu yi waaw mooy li ma la wax sànq ñoonu ñi ngay wax ne dañuy bëggee ñun ak ñoom ñu woon ànd fii di defandoo lépp yàlla def tey ñoom ñu am nattu kon duñ leen fàtte quoi ñu leen di ñaanal bu baax waaw yàlla tegg leen nattu yi ba ci ku ci nekk xam nga dellu ci say activité waaw noonu la demee waaw ñoo la gën a kontaan law mi ngi noonu di moo nekkoon seen émission muy lamb ci biir dak maintenant ñu ñu àndoon ceeg champion ba ñoo leen jàppale Ibou Afia ku si mel si Ahmed Tidiane Ba borom maintenant borom social yi monsieur le maire ba Fall ñoo leen jàppale ñu suñu doom ji ñun waa maintenant kii lañ am ñun kii mooy suñu roi des arènes ku ñu ko jàppale ñu jël ko kii de gars dañ koy jàppale demagul fenn booy yi ngay gis ni ñoo siy sonn fi dërëm juróom di cotiser jàppale leen ñu Ibou Afia yéen politiciens yi ak ñi nga ngi maintenant di jàppale nit ñi balaa ngeen di dimbali nekk nit dee ñëw leen jàppale ñu suñu mbër bii ndax ñun kii lañ bëgg mu nekk suñu roi des arènes ñun Ibou Afia lañ faral te may wax mbër yi ngeen ñëw ngeen jël Ibou Afia ñun benn mbër lañ am muy Ibou Afia moom rek la ñuy topp topp ñu keneen ngir yàlla jàppale leen ñu suñu mbër bi ñun amuñu ku dul kii du mafia bi 27 Ibou nag mbooloo bu topp sa ginnaaw xam nga ko dina gars yi jël ñëw leen jël booy bu ndaw bi balaa maa dee ngeen naan Ibou Afia dafa sedd ak yooyu Ibou la wax mu neewu ko mais bés boo leen toogee si géew yi ba gars yi tëj barrage yi gi nga xam kan mooy Ibou Afia di la sant di la gërëm di leen avancé wasalaam moo fàtte quoi Babacar Cissé mu ngi Espagne donc sama sama nit la bilaay walaay lu nekk lay daj ci man bari sëñ Bamba ama ku ci mel ni Njaga Ndiir Ndar maa ngi koy sant bu baax di nuyu yaayam di wax na yaa victoire bi yaayam laa ko may kooku su ma amee bis day bàyyi liggéeyam bari sëñ Afia nekk ci man waaw kon maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm bu baax aw ma seen fay waaw di leen bu baax noonu la demee. waaw mooy loolu noonu quoi euh, merci gars yi euh, Ibou kontaan nañ bu baax a baax euh, ci dal ci dalal bi ñu nangoo dalal fii sa secteur fii muy Médina ñu ñëw tam gis supporters yi nga xam ñëpp ñu ngi ñëw xale mag ndaw ñëpp a ngi fi di gërëm gars yi di gërëm sa supporters yi di leen wax toogaay bi yàgg na depuis 5 ñu ngi toog di xaar mais nii la quoi soo amee sa champion bu ko nit bu ko gars yi waree ñëw ses yi nii ngay def ñëw mooy ko doole parce que champion soxlool mbër soxlawul dul ñi nga xam dañ ko bëgg te tak tax quoi te ay frère ngay am mooy li nga waxoon quoi ay frère maa ngi dégg ci ginnaaw itam ñu naan nongolo pour mu may la may waaw incha allah amul benn problème waaw loolay wax ji ah mais dégg nga de boo ko waxandoo ah yéen a déggandoo gis nga waaw ah kon kon yéen champion yi ndaw yi Ibou ngi nii nag ñoo ñeneen ngeen jël ko boo ko ci ku ci jëlul ren bu déwénee dina la fekk te dina dal sa waa waaw dinañ jox di daje ci beneen émission waat incha allah ci biir Dak Médina ak seen doomu nday Law one love gars yi di ànd sama cameraman bu ñaawul bi ñu naan ko Adama one love gars yi